waxee rek xam nga jeunesse mooy fer de lance tey Macky Sall bi muy ñëw du taxoon jëlee fi Ablaye Wade mooy troisième mandat donc pour pourquoi pas moom mu toog ba heure bi mu ne moom dafay dafa waxu dafa ne moom du wax wii du wax noo mais troisième candidature bi lañuy xeex bëgguñu ko Sénégal soxlawuñ ko donc quoi insister ci candidature troisième mandat troisième mandat parce que à chaque fois muy am ay coow yoo xamante ni kenn xamul fan la jëm moom moo ñu mën a édifier Macky Sall kese moo ñu mën mënoon wax ñu wala mu firiñu troisième candidature dina am wala du am d'accord moom mi ngi ci ba léegi wii du wax wii du wax non ñun ñoo ngi dem f quatre def manifestation ak yeewi askan wi donc jeunes yi nga fa gis yëpp lan moo leen fa indi non au troisième mandat parce que bëgguñu ko dafa am ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fi 2019 daf ko def dem élection tànn ay candidat am ñu ne ko nag dootul amati parce que lii yëpp li ko indi mooy référendum ba ci référendum ba la njëkkee ba ñuy wax naan wi weeg wi beeg non bi mu indi lii 2016 mu seppi di ko neex tey ji yow bu ñu la joxoon liste na la Birama kat sa lii nga soxla sa besoin lii la yow nga tànn ci li la neex jugal jël li la neex génnee moom mu def li ko neex dugal parce que boobu mi ngi mi ngi euh, dugal troisième candidature am ñu ànd ak le président Khalifa Sall di campagne boobu nit ñi dégguñu fi Khalifa Sall doon waxee parce que boobu ñu ngi naan waaw problème am na ñii dañ naan wii ñi naan non ñu dem continuer campagne. menum ñun ko Fass Colobane Gueule Tapée ak Ngor ñoo ci gañe woon ci wii beeg noo bi. ñuy dem di dem di dem ba tey ji 2023 ñuy wax troisième candidature bientôt élection yi léegi mu ñëw mais Macky Sall na bàyyi loolu ñun dañ koy wax en tant que jeune na bàyyi troisième candidature mu teg ko ci suuf parce que bëgguñu ko soxlawuñ ko Sénégal dëkk bi métti na jeunes yi ku ci nekk da nga ànd ak fukk fi mu toll nii li koy waral mooy euh, bi ñuy def révision exceptionnelle yi jeunes yëpp dañu ñëw en masse. Euh, primo votant yi la même chose di ñëw pour inscrire pour sanctionner Macky Sall. ah oui loolu nga ah, jàpp bien sûr parce doyal nañu nag. Birame loolu nga jàpp ah, loolu laa jàpp parce que dañu <laughs> doyal en fait. pour yooyu primo votant yi doon inscrire en masse. ah bien sûr ah dañuy ñun sonn nañu. ak dëkk bi fi mu dëkk bi metti na Birame dëkk bi foo laa day. mais manifester.